ni jox leen dëgg jël minorité bi jox leen dëgg te loolu amul ci texte texte bi représentant état bi warul xam ku ñëw ku ñëw tur sax war a koo xam xam lu mu war a xam ndax quorum bi atteindre nañ ko bi ñu atteindre bi ndax majorité bi d'accord nañ ci waaye boo demee bu bëgg a xàmmee turu nit chaque jour nga utiliser même personne bi bureau municipal bi ñu woowaat ay nit pour deuxième lecture woowaat nit ñi bureau municipal bi woo six président de commission yi nga xam ne ñoo laale ci feebar bi mooy ouverture école bi foog nga woo éducation pour boulangerie yi ak yi ñuy ubbiwaat marché yi foog nga commission sécurité pour agent yi delluwaat fa commission extérieure yi foog nga ko ndax imi doomu Médina yi nekk bitim réew te seen njaboot commencé am ay jafe-jafe mu recensé leen ñu dimbali leen commission financière pour mu accompagner leen mais ñooñu lañ fa woowoon déglu leen ak commission santé ak sociale pour seen ndimbali fan la war a jëm ñooñu kese la ñu soxla woon ndax période bi soxla woon commission sport ak ay commission culture ak loisir ñooñu bi ñu leen dégloo pay dañu leen a yeewi ñun bureau municipal bi des voter wante ñu ni comme que amon na ñu fa ñëwoon bokkoon ci réunion bi muutaat prétexte ni am na adjoint bu yeugul bloquer waat n'ako. mais lolu du état complot parce que état dañu bind ci texte yi session conseil municipal c'est ouvert au public d'autant plus mu nekk ay président commission benen bi tamit bu ben adjoint demee ba ci yoon bi ni buguma yéeg du teg prétexte ñu war ko bloqué nañu xol ci wa Médina yi ko soxla buñu xol Bamba Fall buñu xol mairie bi nañu xol ni Médina amna ñu ko soxla bii mooy deuxième fois ñu bloquer te am na yeneen mesures yoo xam ne complot yoo xam ne laale na sax ak quelques ministres yoo xam ne tey ñun yëg nañ ko ñu ngi koy def contre la Médina waaye nag ñun tiituñu ragaluñu rafuñu bu taxaw jotee dinañ taxaw ndax ñun Médina kese ñu ñor ni ko Ousmane di waxee Médina kese ñu ñor te ku ñu combattre day métti rek waaye yaay mujj daw.